pour un homme, c'est beaucoup pour un seul homme Maintenant, il y un yonent bi Moi, le génie ah le génie de l'élu divin un bi aussi Moi, le prince de l'espèce humaine mais y en a un il qui est aussi moi l'homme parfait Qui dégoule nag genre qui rek la koy def nos colères leer mu jeex li a la لكن كوني نيول بابم ويتم مي فرد دي وحني فبكو جي سنو حكم بروم ننقول نيول بنا بنا نيتي سبب يننتي بي صلى الله عليه وسلم wax nañu biig sax façon bu mu meloon nag nekkul woon nit ku weex ak dafa tikkoo nag di wax coiffure am nu mu demee woon nag wax na leen ci université Ramadan ci rencontre boobu ñu amoon ak ay intellectuel ca Dubaï te ñuy discuter ci wàllu beauté yonent bi est-ce que beauté taar kese kese la am na ñu nga xam ni li la séduire ci ñoom newul ci seen kanam boo leen gisulit yëg ko waaw waaye loolu itam la tax boroom am ko léeg-léeg nit ñi duñu koy gëstu daf may fàttali benn kàddu bu may dégg Mansour bi di ko faral di wax ni Sëriñ Muniiru moo ko daan wax daan wax ni am na loo xam ni du fii fële la mu ni lu amee fële nag ku ko bëgg lijjante fii da sonn waaw waaye yonent bi li mu rawe ñi ci des du fii fële la mooy façon boobu Maodo waxee ci xilaasul dahab mais mais mais góor gi artiste la dina jël bayt jox la ko ci façon bu nga xam ni boote ba ëpp na am nga loolu do wax ci wa kaana muxtajiban min qablu fi xujubin yusabixu llaha fiha gayra muttasimin وكل حجاب أقام البدر من حقب فيه لطاعة مولانا بلا سأم بجى بجى وقاطع أبحرا ياء بها سبق الجميع ñi ñoo tudde champion yi surtout champion olympique yi man nga ku déggaat ba tey ci benn baat Mansour mii la dégg moom it mu wax ni sëriñ Muniru mu daan wax ni mbër moo gis muy daan tibb ba mu daane lekku ko ca bëccëg ba mbër moo gis mu daan tibb ba mu daane lekku ko ca bëccëg ba mais yonent bi góor gi nee na malaaka yi ñoo mujj sax tiit parce que ñoom dañu leen boole ak ruuxu yonent bi pour ñu entre entraîner ko nee na ñu di ko tëj ci ay tànt mooy xujub yi mu tudd nee na tànt bu ci ne ak exercice bi ñuy def loo roox bi ak tur bu yàlla biñ koy jox mu di ko sabbaal boole ko exercice bi ci biir tànt bi mooy li muy mat maw day wax fa qudratun minnatun yooyu léeg nee na dañ koy defal exercice ba léeg-léeg roox bi dafay xëx ne bu ko defee ñu génne ko dawale ko ci tente bi dugal ko ci piscine bi ne ne piscine yu nga xam ne benn bu ci nekk bu ñu doon wut ndox mu ko remplir juróom-ñaari géej yépp dinañ leen ca def te du fees benn bu ci nekk te ruuxu yonent bi dana ko feey booleeg tur ya muy ànd di def tasbih moo tax baatu doo ñoom du yow du tey waaw nee na nekk ci yooyu bu na nangam nangami junney at waaw aqaamal badru min xuqubin c'est très important lu Maudo utilise utiliser baatu al badr c'est très important ah di nga lire alquran ba mu jeex Yalla tuddul badr di nga lire alquran ba mu jeex presque tuddul baatu Hilal. xanaa ci benen façon yasalunaka anil ahilla Ah, ok def ko jamono waaw ah. Listen. hey, listen, listen, listen. The bottle Okay, see Malik, listen. Okay. You may learn, you talk, okay? Mm-hmm. jox leen leen ñu togg ok san rabbul manzil <laughs> boroom kërkët bu ñëwee ci këram tabaarakallahu war fa yaatu waaw kay si Malick jërëjëf si jërëjëf lay nuyu yàgg ñi nga àndal yëpp ni rafet lu teewaay bi tabaarakallahu moko momal bopam boppam fa tabarakallahu wallahi ndeysaan lay ndeysaan lutax mawdo tax badu al badr manan li ñoo wax ci wolof rek baatu weeru badar waaw waaye bu ñu fàtte ni weer la ñu njëkk tudd soog ni badar waaw sunu borom boo xoolee alquran yëpp baatu qamar lay tudd wal qamara qaddarnaahu manazil waaw waaw laa ilaha illa allah